ci nim feese del ak cofeel ak teyeem ci nim feese del ak cofeel ak teyeem cofeel ak teyeem ci nim feese del ak cofeel ak teyeem ci nim feese del ak cofeel ak teyeem fu ndab feese dey tuur xol ci nim feese del ak cofeel xol baa ngi jéem. xol ngi jéem. mu jéem jéem. la bam si Ahmadu Bamba mu tuur rangooñi way te fas jig texe moo jara way fu ndab feese day tuur xol baa ngi jéem Ahmadu Bamba ginim feese del ak cobel ak teel Ahmadu Bamba samab sang laay way di Sayxul Xadiim Ahmadu Bamba ne moom moo yayoo way di jooroo karim moo jara way bu ndab feese day tuur xol baa ngi jeex Ahmadu Bamba di dim feese del ak jabel ak teel Ahmadu Bamba ne moo jër jëf lu kenn mas la jëf wax yonen Seex Ahmadu Bamba lu kenn mas la wax sax di Abdul Xadim moo jara way mu nafees tey tuur xol baa ngi jéem xol la bi jobeel teel Ahmadu Bamba ci jaamoo ko bégloo yonen ci bindam Seex Ahmadu Bamba defar ba muy aw ngërëm musu taxi moo jara way fees day tuuru xol baa ngi jee xol baa ngi jee yi dim fees del nag jomeel ala tee Ahmadu Bamba te ñim defar ñeepa maat ñeepa jak si Ahmadu ba yow ko ci gëstu yi mbiram dang ko yee moo jara way ku ndafeese day ngi jee xol ngi jee ci nim feese del Ahmada daayee ni tëmbam ni jar xelam. Seex Ahmadu Bamba mu jàngal ko bam xam mu yar def ko kee. moo jara way bu ndafee sa day xol baa ngi jee. xol baa sa del ku cobeel ak tee. Ahmadu Bamba liggéeyal yonen yonen ba waral ab tukkee Ahmadu Bamba tafar jox ko léppam bëccëg ak liggéey moo way fu ndak fees tuur xol baa ngi jee xol baa ngi jee ak cobel ak teel Ahmadu Bamba amul amul kem kaw ak suufayam si Bamba amul kem Bamba si Ahmadu Bamba ku war ab kamem doo ko gis bul ko jeex amul kem amul kenn bamba kaw ak ko fayam kawak su fayam ku wër ak demam doo ko bul ko je Ahmadu Bamba sunuy beug jama teranga ak yiw te Ahmadu Bamba sunuy beug jama teranga ak yiw Ahmadu Bamba nanuy gem Sëriñ Bamba tamoy tey texe amul kem amul kem kaw ak suufayam kaw ak suufayam bu wër doo ko gis ko jee si Ahmadu Bamba sunuy bëgg jaama teraanga ki yiw si Ahmadu Bamba na ni nga Bamba mooy tuy tere moo jarawaye amul kenn amul kenn kaw ak suufayam kaw ak suufayam bu wër doo ko ataak salaam nan ko jagleel yonen wa aalin wa saabin gërëm nag xadim salaaman ko jagleel yonen jagleel wa aalin wa saabin gërëm nan xadim gërëm nag xadim wa alim wa saabin gërëm nag xadim gërëm nan xadim wa alim wa saabin gërëm nan xadim gërëm nag xadim wa alim wa saabin gërëm nag xadim gërëm nan xadim wa alim wa saabin gërëm nan xadim wa alin wa saabin gërëm nag xadim gërëm nag xadim wa alin wa saabin gërëm na ko Xaadim Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbakke yàlla na fi yàgg lool te wér barki borom Touba.